yin yu baax nangu mu ñal sëriñam barke mooy soxna fawad wele mango mu ñal maam Usmaan barke mooy ca jigéen yu baax nangu mu ñal e loxo ca kaw sëriñam barke mooy ca ma fawad wele mu ñal maam Usmaan barke loxo ca kaw bismillaay may jóge di kañ jigéen ju baax borom sañ-sañ jëfe diina borom di bañ lépp lu ñaaw ba am jigéen ju baax nangoo mu ñël sëriñam bari ji woy cërëm fa wàddu wele ko mu ñël maam Usmaan bari ji loxo ca kaw roy leen ci fa wàddu wele roy leen ci maam fa wàddu wele borom lii amalu ne ba tax tuuram wi siiw na na ko buur yàlla fay ngeen baax nangoo mu ñal sëriñ am barke mooy cëram fa wadduwele nangoo mu ñal maam Ousmane barke loxo ca kaw la roy roy jigéen ju baax sang bi yaa fi jëfe lu tax ko añaanul di wax sama yaay maam as gi si mag jigéen baax nangoo mu ñël sëriñ bari ke way cëram fa watu alee nangoo mu ñël maam Usmaan bari ke loxo ca kaw lerga nga bàyyi ko gaaya pour adduniya borom xaaya dëkk diwaan solo yaa tas gi bindee fii xam cëram jigéen baax nangoo mu sëriñ am barke way cëram fawatu weleen a ko muñal mam Usmaan barke walay caaro yi sër ba nga jox mam Seexu Omar sër ba nga jox mam Seexu Omar hadiya tax dëri wiirin wuti sa doom ji nekk weer tol ni badar guddi gula doom jigéen ji baax nangoo muñal sëriñ am barke way cëram fawatu loxo ca kaw ca la waxee ni man Cheikhu Omar bi ma taxaw ba tund kor doomu faawaat du welee koy yor di fi wax diine ay mbiram jigéen ñu baax nag boo mu ñël sëriñ am barke way cëram faawaat du welee la ngoo mu ñël maam Ousmane barke xale caaro yi xam-xam bu wér bi yaa ko yor dina ju sell ji yaa ko yor yoonu tiijaan dootul far jëfin moom as mooy xam-xama jigéen ñu baax nangoo mu ñël sëriñ am barke way cëram a fa wàddu wee nangoo mu ñël mam Usmaan barke loxo ca kaw sëya mam maw donge ca dat sëya mam maw de biir Dakar sëya tuwaawan ëmb la ki mu tasuur ko aw ñalaat yi ñu baax nangoo mu dem sëriñ am barke mooy cëram faawaat wele nangoo mu jël maam Usmaan barke mooy loxo ca kaw fajar timis si jàkka yi diiri fajar timis jàkka yi diiri jëlatal di Sénégal loxo man as ci biir biir lu ko mooy gaal gi dootul naa jigéen ñu baax na ngoomu ñël sëriñ am barke woy soxna Fawa Duwele na ngoomu ñël mam Ousmane barke woy xale caaro yi salaatul faatihe nu saf la mu saf ka ko mos rek la saf ku mus leneen jëlal sëyëf leeru maam as du rafetlu jigéen ñu wax nangoo muñal sëriñam bari koy woy cëram fawat wéree nangoo muñal maam Usmaan bari koy woy bale caaro yi nasiril xaqi dootul fay xaqi wil xaqi dootul fay tal atil xaqi doy na lay dëgg bi réer li mooy li jigéen ñu wax nangoo muñal faaw àdduna leen a nga muñal maam Usmaan